and you Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la 2S TV. L'aventure reprend après deux ans, deux bonnes années de pause. mais de réflexion, d'orientation, d'organisation. Et ces deux années d'ailleurs nous ont permis de mettre en place un comité d'éthique, d'orientation et surtout de défense des valeurs de la femme sénégalaise. Nous voudrions remercier la présidente Amina Badian qui s'est battue depuis de très longues années après avoir tout laissé en Italie pour venir installer ce patrimoine-là qui appartient désormais au peuple sénégalais. Nous voudrions également remercier tout le comité de Miss. Mesdames et messieurs, nous voudrions remercier son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui encourage des initiatives pareilles. Remercier également le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le professeur Alisso, qui a su institutionnaliser justement ce label Miss Sénégal Nouvelle Vision. Remercier aussi le ministre du Tourisme, monsieur Mbaye Niang. Remercier le ministre de l'Artisanat, notre ami Birame Faye. Remercier aussi monsieur Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar. Remercier tous les Sénégalais qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus eh bien, pendant ces longues années, pendant ces deux ans. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je voudrais inviter une très grande dame qui a fait les plateau tous les plateaux au niveau national comme international, que vous connaissez très bien. C'est la grande mannequin, s'appelle Khadija Sy, que j'invite à venir à mes côtés. bonsoir. Alors si vous voyez ce beau visage, eh bien ce beau sourire, cela vous rappelle bien des choses. C'était depuis notre très cher ami le défunt Ambroise Gomis Khadija si ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal itam bëgg a partager plateau bi ak yow parce que pour plateau bi nag mun a jekk mun a rafet macha allah il faut que mu am itam macha allah ay jigéen ay jigéen ñu jongo comme yow moo jox la nag micro bi nga nuyu mbooloo mi. di leen wax ni que kontaan naa ci waat leen et euh, di féliciter encore sama sœur madame euh, la présidente Amina bajan pour initiative bi nga xam ne mooy Miss Sénégal ku nekk xam ne ni euh, Pape yombul mais mais mu am force ak hargne ak courage continuer lu muy def muy Miss Sénégal di féliciter aussi ñi nga xam ni comme ni nga ko waxee tout à l'heure muy son excellence le président de la République Macky Sall moom mi nga xam ni dafa bëgg a jëmale culture kanam di féliciter aussi le ministre de la culture te di ko wax ne que nii rek la le monde de la culture est comme ça euh, les gens sont là ils veulent que ñu accompagner leen comme moom ni euh, ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, vraiment di ko wax nii la rek le monde de la culture est là et il faut les accompagner. Miss Sénégal ça part de la beauté. de la beauté sénégalaise et de la beauté africaine. Donc, on va voir tout à l'heure ce, euh, ce, qui va se passer, Pape. En tout cas, je sais que nous aurons de très belles surprises. Alors, mais je voudrais déjà présenter les membres du jury, d'ailleurs, Tigo Bokoyo, oui. parce que, yo, machallah, Euh, plateau yu mel nii da sa teewaay da ci am solo ah te askan wi jox nañ la bopp. présenté les membres du jury nous avons ki qui s'appelle Fawzi Deme koo xamante ni ci wàllu tourisme au niveau national comme au niveau international ñëpp ko xam waaw euh, mun naa wax ni forme lijaasa bu nekk am na ko ci wàllu tourisme réew yëpp dañ koy xëccoo waaye moom dafa ne fii lay Sénégal ngir jariñ réewam parce que je pense que ça est du tourisme merci Fawzi Deme merci beaucoup jërëjëf di présenter itam keneen koo xamante ni kii kooku yàgg nañ lu ñu accompagner mooy Ahmed Diouf di liggéey au niveau de la Poste groupe La Poste nekk itam le secrétaire général des travailleurs de la Poste donc Ahmed Diouf merci si sa teewaay sa présence itam di remercier itam euh, sunu beneen membres jury bi Ndella merci beaucoup euh, d'être là ah di kontaan parce que je pense que nous avons besoin des jeunes yu mel ni moom pour mën a joxe seen point de vue seen avis ci lii war am ci plateau bi waaye euh, du ñu yem ci ñooñu itam am na am na fii euh, la maman de notre Miss notre Miss Gladys nga xamante ni moo demoon représenter le Sénégal fële ca Congo je crois c'était dans le cadre des Jeux de la francophonie ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax baax a baax ah di gërëm itam sunu artistes yi nga xam ne ñoom la invité Djibi Dramé mi ngi fii Chadia itam mi ngi fii ñoo def sa prestation alors su ko defee Khadija nag dañuy bàyyi rek euh, xale yi ñu def seen parade donc aujourd'hui nous avons la région de Fatick nous avons la région de Thiès. di remercier nag euh, ki nga xam ne kii mooy ay Aïda Fall Diarabi Couture Diarabi Production parce que moom ñawal na xale yi comme d'habitude chaque année moo ñawal leen di remercier itam euh, ki nga xam ne mooy Maya Couture Maya. ma nga ñële moom mooy Mamaw Miss Gladys nekk fële Mermoz deuxième porte côté lycée Ngalandou Diouf kon nag ñu ngi di gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax. voici donc le premier passage des Miss nga am fi benn xarit boo xamante ni bii macha allah qui est euh, une grande virtuose de la musique mandingue accompagner la ñu accompagner mi Sénégal Nouvelle Vision kooku mooy kan. ah Pape tey ki may présenté dina ma neex torop muy sama xarit di sama doomu ndey di un très grand artiste nga xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal mondialement reconnu je veux nommer Djiby Dramé. mañ incha allah initiative bi nag muy Amina. mu doon nag femme battante femme de référence ku bugg réewam bugg Sénégal consommation locale la ñu wax. waaw balaa ngee lax jaay nga lax lekk. ku mel ni Amina dañ ko war a jox fu drapeau jox ko trophée ndax nii maa ngi koy fàttali ko depuis Ambroise Gomis. macha allah nem seel Ambroise Gomis laa doon xool mi Sénégal te Amina jël trophée bi kon nag dama bëgg a képp kii doomu sénégalais doomu africain. nga ñëw nga soutenir Amina lu muy def nii dafa bëgg a promouvoir aussi lu ñu moom ndax lii man bu may xale laa doon xool mi Sénégal macha allah te ba mu am jëmm mel nii ma ñoo gis Amina du ko defaat kon nag lii duma ko bàyyi mu sedd. Tout à l'heure, c'était un défilé avec des t-shirts. Mais cette c'est un défilé avec des tenues traditionnelles. De rappeler le thème euh, de cette édition, moi, culture et patrimoine historique, vecteur de paix et de développement socio-économique. C'est important que nous à travers donc cette édition-là, de qui rendre hommage Euh, le professeur Aliou Sow ministre de la culture et du patrimoine historique puisque moom bi nga xamante ni euh, dem nañ ko seeti dafa waxoon ni sax Pape yak Amina j'étais pressé de vous rencontrer parce que il faudrait que que le euh, la compétition mi Sénégal qui est un patrimoine national aujourd'hui parce que Amina moomu ko kenn moomu ko réew moom ñoo ko bokk. nañu defar mu baax nañu liggéey mu baax parce que loolu la Sénégal soxla aujourd'hui mu ne je vais vous accompagner lépp loo xamante ni yaakaar ngeen ni baax na ci compétition bi wax leen ma ko moi je vais le faire sans hésiter tout de suite ce sera avec Miss avec euh, la région de Fatick jàkkaarloo moom nag elle va se présenter. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers de la 2STV, Monsieur Faye, bonsoir. Veuillez recevoir de mes salutations les plus chaleureuses et permettez de me présenter. Je m'appelle Mamfama Gaye, âgée de 23 ans. Je suis étudiante en Master on à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et spécialisation sciences criminelles. C'est avec un immense plaisir que je suis là aujourd'hui, présentement, pour conquérir la couronne régionale de l'une des plus belles régions du Sénégal. Messieurs, dames, je veux nommer la région de Fatick. Merci. Voilà, merci beaucoup. Euh, elle est spécialisée en sciences. en sciences criminelles kon nag gaa ñi def na ndànk de ah attention de elle est en spécialisée en sciences criminelles de alors léegi man dama amoon benn question bu ma lay alors vous dites que vous habitez Fatick mais xam nga il va se passer de grandes manifestations culturelles dans la région de Fatick manifestation yooyu la bëggoon nga wax ma déjà yan la. pour y répondre effectivement deux événements premièrement il s'agit de FESNAC Festival national des arts et Et en deuxième, il s'agit Salon national du livre. Il va y passer évidemment euh, dans région de Fatick au mois de janvier 2024 deux événements majeurs. Hein. Il s'agit du FESNAC, le Festival des arts et culture, le Festival national des arts et culture, Et également, et dans le cadre de ce Festival national des arts et cultures, il va y avoir le Salon national du livre. Et tout se passe dans la région de Fatick, disons dans la ville de Fatick. Voilà. Merci beaucoup. Aussi, je crois que c'est un événement pour rendre hommage à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Donc, merci encore. la chanteuse Chadia euh, Chadia xam naa ko kenn du ko présenté et moo wax la benn secrétaire Pape Chadia elle a fait les Miss Labado à la 2STV ici donc man foofu laa ko xamee foofu laa ko découvrir foofu laa ko découvrir mu nekk xale bu rafet déjà Sadia, merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, place à la... de mu ñëw wu def ci quelques mots Ahmed Diouf également ah. asalaamaaleykum bon li day firndeel rek ne euh, jigéen gannaaw ba ko yàlla teralee jox ko gëdd nit ñi nga xamante ni bi ñoo leen wër di ay góor nii ñun war nañ leen gën a jàppale ngir sama borom daf leen jàppale ba pare gàcce ngaalaama sunu sœur sunu xarit euh, Amina Badiane. surtout euh, thème bi nga xamante ni bi moom la jël ren muy patrimoine valeur culturelle mu nekk euh, cosaan boo xamante ni bi dañu war di ko vulgariser euh, ñi nga xamante ni bi tamit ñooy couturières yi di styliste yi wane nañ ko ci modèles yi ñu génne xale yi tamit macha allah solu solu bu yiw bu jekk boo xamante ne bi dana gën a mën a jaay Sénégal. waaw Pape maa ngi nuyu ñëpp di am contente bu baax di dellu siwaat fii ci deux s en compagnie de en tout cas toute l' équipe de Miss Sénégal à la tête euh, Amina Badiane di ko sargal di ko féliciter parce que xam ngeen ne Miss Sénégal liggéey bu metti la liggéey la boo xam ne par moment sax euh, da ngay xaw a boo amul courage tuuti doo dem ndax euh, yu bari yoo xam ne daf ci xew mais je pense que Pape leeralaat na. li tax a jóg événement bi comme yeneen événement culturel yëpp dafa nekk événement boo xam ne événement national nit ñi dañ koy topp di ko di ko suivre te je pense que ne dafay yëkkati rek turu jigéen loolu rek la boo tax a jóg. Nous allons regarder justement à la sortie finale des Miss.